mu mel ni ba tey ñu ngi kër Balla Gaye numéro 2 fii ci Maris anniversaire bi tey la Sa Thiès rakkam olof nee na mbokku ndeye koy jur Saliou maa ngi lay nuyu di la wax mbaa am nga jàmm. waaw maa ngi am jàmm baax maa fay santaat yàlla baax a baax di la nuyu da la sa wàccuwaay mu mel ni sa mag ngeen bokk ndey ak baay muy Balla mooy fête anniversaire am nit ñëpp ñëw teew nga ñëw teew loo yëg ci bés bi. damaa kontaan parce que xam nga moom ñu ko bokk dañoo bëri alalu moo tax gis nga ma ci ginnaaw laa toog bakoog ñi nga xamante ne ñii nii euh, lii moom day na sant yàlla ndax am na ñu bëggoon fekkee te fekkee ñu ko ñii seen yaram mataleew ko yàlla leen ci yàlla yëkkati ñenn ñi ñi ngi ci caabi féetee ginnaaw yàlla leen caabi féetee kanam di yàlla jàmm ci réew parce que lii jàmm rek moo ko waral waaw te borom bis bi nag peut être nit ku baax la nit ku la nit boo xamante ni franchement parler ku mu gis ko boppam waaw te problème am problème bu jàmm nag moo gën a tiis basam basam lan moo tax maanaam si sam seetlu bi ma seetlu mooy euh, maanaam nit ñi ni ñu bëree fii ci anniversaire kese kese kese waaw dañoo limité de yàlla xam na ko ah. waaw dañoo mujj a limité mais parce que bu ñu ko limité woon peut être dana tànd fii ah. mais xam nga tamit say nit moom say nit rek a mën a boole boo tamit ëllëg nga ne leen léegi ñoo caab te ku ne xam ne mbas bi fi nekk am na loo xamante ne mën a ko organiser ah. waaw mënoo téye kenn dëgg yàlla mënoo féetee kenn billaay ci jégalu baax baax nag. tey moom en tant que sa grand frère ak ni ko li nga wax comme ni ko nit ñi jàppe loo koy ñaaxee loo koy dolli ban taxawaay la gën a war a mën am moom. bu gën leen a sàmm rek ñu a jàppante te yàlla rek a tax ndax ànd te yàlla tax rek am solo waaw kuy ànd intérêt rek du yàgg bu intérêt bi jeexee rek yaakaar naa di nga moom na nit ku baax la day jàpp te yàlla tax ñi muy àndal tamit baax lañu. franchement baax na xarit démb ñu ngi ànd ak ñoom même ay nit tey tamit ñu ngi koy jàpp te yàlla a tax te loolu rek moom solo dëgg yàlla yàlla na yàlla jàppale rek sen ànd aussi moom yàlla defal ko carrière bu gudd combat bi mu jëm yàlla may ko ci ndam di des ci avenir rek tam yàlla dàq li ci ginnaawam ci kontaan ci yow kii moom defe naa ne ku ko xam xam ko Balla ah kii moom confident wu Balla la maa ngi lay bëgg nga fàttaliwaat inter nga fàttaliwaat téléspectateur yi sa tur man la maa ngi tudd As nekk doomu Balla Gaye nekk moom rakam danaam doom laa fi moom doomam nga waaw waaw mais yow dama am lu ma seetlu sa diggante ak moom balaa may ñu jox anniversaire bi Balla dafa maanaam dama gis nga nekk xale mais li ñuy am ci moom maanaam bu ñuy liggéey ci moom maanaam di reportage dañu gis ne ku Balla ku la wóolu la lu xew non xam nga tey àdduna moom ma baaxoo nee ne c'est a moom affaire bi jël rek c'est que boo xam jot na ma jël jot naa ko jël dama bëgg ba dugg si xool ma man moom dañoo am si moom kees boo xam ni Omar mun naa ni sama àdduna xaw ma kenn ku dul moom parce que day sonn si man parce que koo xam ne day jël lu ne ci la koy jox satisfaire ay nitam ndax yow ndax kooku daa wàccoo ak yow amul ci àddunaam lu baax lu ne yéene na ma ko lu mu am jox ma Omar day jël loo xam sax amaana jarul sax ñu koy wax dama koy jox ne ma teel lii bu kenn yëg sama nit la daal sama papa sama lépp la billaahi yow it yow it mention spéciale ndax yow kenn gënu la woo gis nañ taxawaay bu baax a baax di ñaan yàlla fi nga nekk nii yàlla nekk ay télé télé télé yu bëree bëri nit gën la Babacar billahi loo koy wax ci bésu anniversaire bi ah xanaa ñaanal ko yàlla rek moo xam li mu bëgg ñun moom mun ñu ko fay loolu tey dem am yàlla may ñu jël ay doom comme ñu daan taxawoo ñu koy taxawoo moom ñun tey loolu lañ bëgg si moom dimbali doom dimbali waajuram parce que ñun mun ñu ko fay ndax amuñu duñ ko fayee mais suñu doole lañ yor ak suñu xool moom xam na yàlla xam na da ngay bàyyi yàlla rek yàlla baax na dégg naa nag xaalisam ak lépp sax yow rek la ci wóor oh. dégg naa lool de dégg naa compte yeeg yëpp ah, moom day ah. am compte ci laa compte rek ah. waaw moom noonu daal borom baax la waaw moo kii toog nii kenn ñoom bilaay kii sama mag la sama lépp la du sigi xool ma sigi xool ko bilaay wallaay man jooyu ma jooy ma dara ndax ñoom dañ maa taxaw taxawaay bu rafet kër appartement lëmb jox la ko ne la am teel xam nga kooku yow ah. waaw billaahi Balla defal na loolu non Balla daa wàccoog man man ma des si moom billaahi wallaahi dama gën a ay nitam yoo xam ni lu yàlla xam daal billaahi ah. dama kontaan daal billaahi wallaahi ah, mais c'est Babacar maa ngi lay siyaar Babacar ñu loo wax ci li sa xarit wax ak li Sa wax ci Balla looy wax tey Balla. ah ñun tey dañoo kontaan rek instant suñu xol dafa fees mënuñu wax dara ndax sa waay defal nañu lépp jooyuñu mag jooyuñu dara ndax luñ bëgg suba ba ngoon sa waay mi ngi si moo tax tey bu xewloo nii rek la mën a demee quoi koo xam ne dafa wàccee boppam ñun tey dañuy ñaan yàlla moom lu ñu gën a tund rek mu nekk suñu arrangement ndax gis nañ ñu ñuy sonnee suñun tey am na lu bëri tey moo ko jëlee suñun loo xam ne mënatuñu ko delloo moom moo ko jëlee suñun barki yàlla tey instant yi mënoon a fekk ñuy nekk ci leneen ak leneen mu ñëw jëlee ñu si loolu indi ci lu baax mais kenn du kii tamit barki Seydina Mohamed billahi wallahi wa taala day sonni si ñun chaque instant bu yeewoo suba teel téléphone am carte téléphone la ñu njëkk woo laaj ñu fu ngeen nekk bëgg a xam si ay conditions yi nekk bëgg ñu ñuy sonn ci dara moo tax ñi amuñu seen fay dama leen di wax longue vie à toi rek luñ dund doyul kontaan naa si ñoom waaw mais xules bu ma tourné yu bëri yàlla xam na ne ñemeloo nga ñu bëri yow dama la naan ca kaw ca kanam fi nga ko jàpp la on se capte. on sa Dieu vous bénisse. jëm yàlla jaajëf baay ma samba teeni baay sama yaay sama yaay booyo baay lay waay léegi Omaro maa ngi lay ziar. mais nama naa la grand bi. maa am nga jàmm maa ngi góorgóorlu sant Sëñ Tuubaa rek. nga toog nga ñëw sara ak sarak Sidi Diop ñëw ci bésu Balla Gaye loo ma mën a wax ci bés bi ak ci Balla Gaye borom xol bu rafet nit ku baax nit ku man nitam nit ku gore nit ku rafet xol nit ku nangoo sonn ci doomu aadama nit koo xam ne ni mu lay jàppee démb ba nga yorulee dara boo yoree ay milliards noonu la la jàppee nit koo xam ne boo yore ay milliards ni mu lay jàppee boo demee ba yore too dërëmit noonu la lay jàppee kooku mooy Balla Gaye 2 xaw ma koo gën na jàmmam yàgg diggante Thiat Seck ak Sidi Diop dégg nga Thiat li mu way ak li mu wax ci Sidi loolu loo ciy wax waa mais li mu wax dëgg la Thiat magu Sidi la baayu Sidi la Sidi rakku Thiat la doomu Thiat la c'est le Sénégal ki jañ lii rek moo war mooy bokk nday bokk baay rafetal ko ba mu rafet ndax àddina am solo te dara jarul ñaaw ndax lii lépp nay jeex incha allah kontaan jërëjëf mon ami kontaan naa garaat ngi toog kii mooy lamin Golo yéen ñiy dégg Lamine Golo wala Lamine fay Lamine maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar wér wér tey ngeen def délégation ñëw kër Balla Gaye muy fête anniversaire yaak yaag Balla moom yaakaar naa lépp ci lamb yéen a ko door ba heure bi waaw loolu dëgg wax waaw di ko ñaanal rek lii mu def nii mu yàgg koo feete ay ati at wax dëgg yàlla di lu rafet tamit mu jël lépp jagleelu ñu ko wan nañu affaire bi yéen la ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax rek mu def ko ay ati ati at mhm. lees numéro 2 lees maa ngi lay ziar Babacar maa ngi lay bëggee bu wér mu mel ni tey sa àndandoo koo xam ne lépp yéen ko ànd yow ak moom ak Lamine ak ñoom Abdou Diouf ci làmb tey moo woote fi anniversaire am ngeen ñëw teew waaw gis nga tey fii fi ñëwee war nañ fi ñëw buñ fi ñëwul danoo war a ñëw yàlla boole ñu du làmb du dara suñu bàyyi la woon loolu kóllëre boobu muy continuer ba heure bi mu xewle lu mel nii ñu ànd ak Pape Mama Fall ànd ak Abdou Diouf def suñu délégation ñëw muy nekk fierté bi nga xam ni fierté Guédiawaye yëpp la ndax Balla Gaye waxuma la fierté Guédiawaye Balla Gaye ñoo ko bëgg loolu dañ siy kontaan bu baax a baax di ko ñaanal yàlla mu yàgg ko feete ñaan ko ya ñaana ko yàlla mu dese ay dam ci kanam ak kanam ak kanam ba jëlaat di ko ñaanal yàlla mu am wér ak wérle parce que lu jar la jamono ji fu ñu ñaan wér ak wérle waaw parce que lépp lu monte ñëw rek na fekk nga tal ko. ñun ñi nga ànd ak sunu papa papa mama vraiment xam nga waaw waaw mais nag dafa am dafa dafa bu ñuy signé maanaam euh, papa mama ak Aziz Ndiaye. Aziz ak papa mama. waaw Aziz ak papa mama borom géejawaay. waaw Omar dafa am lu waxante ma Omar Aziz Ndiaye mooy papaam. man kii mooy sam papa ne laa ko sam papa moom sa papa. Ah. te tey nag lañ koy signé fii. kon ci kanam lay leer waa ci kanam lay leer. am na solo Pape Mama maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay ziar. nga jàpp. mu mel ni tey yow moom liñ lay waxal mooy géejawaay yëpp nga boot. Balla Gaye di anniversaire nga boot mbër yëpp ànd ak ñoom ñëw dugg ci kër gi mu mel ni tout le yaa ngi leen di boole rek di leen boole pour ñu gën a ànd. waaw mais loolu moo ñu war loolu moo suñu ñu ñëpp benn lañ waaw. Balla loo koy wax tey ci bisu anniversaire am. waaw di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam wéral cëram barkeel njaboot gi yëpp ñu koy fexe ay cent ans bokkoo yàlla def ko milliardaire sëñ Touba def ko ñun ñëpp uh-huh. incha sa digg waaw dégg nga ba tey yàlla def ko roi des ah, nga bëgg. ba mu retraité la ñuy wax roi am dañuy fu mu la sant Saliou sama caméraman bi. ah xulle la sant de. kon de am naa fi doomu baay. wallaay doomu baay la. ah du caaxaan. xulle du caaxaan. ku aay ci caméra la. ndeysaan xulle maa ngi lay siyaare. mooy sa buur de. mooy sa buur. ah ndax tu couleur la. ah xulle man séréer laa daal ngaari pël bu rafet. defal lu la neex. <laughs> mais tey bés bi loo ciy wax defe naa ki anniversaire moom ku la tudd tudd ko. waaw loolu moom waaw lamay lamay wax cungu ñay cangay Omar moom sama Omar la waaw Omaru Liiru Jaan la Omaru Pape Mamma la Omar xaritu ñëpp Omar sénégalais yëpp ko bëgg waaw bu sax euh, mën nga ko bañ a da koy bëgg xol baa tax moo tax gars yi bu ko Omar mën lu ëpp sax Omar mën lu ne. kii dajale doomu adama yëpp di leen jox xolam moom ci bopp jëmu boppam mu gënal leen moom ay jëmmi doomu adama gënal ko boppam loolu yombut ak fi jamono bi toll donc euh, ñu koy ñaanal yàlla rek lii mu lii muy def nii yàlla na ko def ay at yu baree baree bëri ñu koy wax ni nag Gris Bordeaux moom ñu koy ñaanal jàmm ak salaam gudd fan ak wér ndax mu fekkee bés ba bombardier Gris Bordeaux ñam na ba pare bombardier ñu koy wax ni ko na waajal yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak wër waaye dina xam ni dinañ ko ñam soobe yàlla ci kattanu yàlla ak mën-mënam yàlla na ko Balla Gaye daan ay jëlli jëlli ba toog ci kawam loolu mooy feexal suñu xol féexal bépp fan su Balla Gaye numéro 2 waaw loolu lañ koy ñaanal yàlla mel ni caat wax daa mel ni taw loona yaram de waaw daa gore rek daa gore rek te baax caat suñu mag la suñu xarit la waaye eh, li mu wax dëgg la man su ma koy déglu suma yaram day daw ndax pap caat eh, mi way rek dongoloo rek ngay gis dongo rek ngay dégg ñun gisatuñu ndongoloo waaye mooy suñu ndongoloo kenn jooyatul ndongoloo ca banlieue bi muy Pikine Géejawaay waaye ñu dëkk Pikine yëmbal Caaroy fépp ci àdduna kenn jooyatul ndongo ndax caat yéen ñaar dañ leen di comparer yaag caat non caat comparaison comparaison amul suñu diggante su ma mag la moom mooy mag man maay raq moo jiitu nekk si suñu kilifa ma topp ci ginnaawam ndaxte ay mbirum musique yëpp bu passé suma mag la suma kilifa la te wax na ko léegi seede na ko waaw ko ko jox cër laa ku ko jox cëram laa ku ko respecté laa ndax suma mag la yeah tey lu waral teewaay bi fii anniversaire u Balla Gaye waaw tey dañ fee ñëw ndax eh, Balla Gaye suñu mag dañ fee ñëw ndax Balla Gaye suñu mag <laughs> Abdou maa ngi lay siyaare maa ngi lay bëgg baax naa naan waaw tey ndax suñu mag euh, euh, Balla muy nit ku baax euh, ñu bàyyi suñu yitte comme ñun bu ñu amee bis ni muy bàyyi itam yëpp ñëwal ñu moo tax tey ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñun tamit ñëwal ko waaw kontaan maa la gën a kontaan moom frère